nii tege ndaw sii toog mi ngi nii dinañ leen ko jox moom ci boppam lañ nappe laata xeex bi di am moom dafa am pelente boppam parce que dañ ko kidnappé woon enlèvement nag xam nañ lan la ci yoon wax léegi nañ leen bàyyee ndaw si moom dana leen expliquer nan la seen bi demee bismillah place. ban mën ngaa jël ci caravane bi boobaa léegi bi ci caravane bi. c'est mu yor rek la. comme ni ma ko waxee boobaak léegi ñun ak ñoom Cheikh Bara ñi ñoo ànd nekk ci liggéey bi di campagne nekk ci caravane bi di dem di topp suñu caravane fu ñu dem macha allah fu ñu dem macha allah ñëpp génn dóor yee metti nag da may comprendre fi bu may wax sama wet yëpp metti waaw noonu la demee daal bi ñu demee. ni nekk suñu liggéey nekk suñu yoon caravane di karabaan ba ñëw ak si dëkk bi nu tudd Daaru Muxti bi ñu ñëwee Daaru Muxti ci laa dégganteeg sama yaay dafa am xaritam mi yor amee tam soxna la ñu koy wooye soxna Sall waaw sama yaay na ma comme yéen a ngi foofu bu ngeen agsee man ko ñu ngi nii daaru agsi nan mu ne comme agsi ngeen daaru dama bëggoon nga jaaram sa tante soxna jëlaatal ma numéro ndax dama perte numéro la suite bi laa laajte fan la dëkk ñu ne ma koñu pharmacie bi bi ma ñëwee ba ci koñu pharmacie bi ma laajte ay xale yu góor laa fekk ñu taxaw ma ne leen xam ngeen ku ñuy wax Pam Soxna Sall ñu ne kër gee la man dama dox benn xale bu góor ñëw rek dóoree ma ginnaaw keneen ñëw xëcc sama brassard yi ma takkoon ñii jàpp ma di ma dóor mbooloo mu bari ñëw mbooloo mu takku ñu jàpp ma kii di dóor fii kii di dóor fii. ci noonu moom Diagne Fada ci la ñoom ànd ak ay gaatu ko waram bi mu ñëwee dal di ma laaj na ma yow soxna si xam nga li nga def déli la yow waroo takk brasa ah yor sa écharpe dugg ci koñ bi yow xanaa xamoo ni fii sama secteur la man ko kon politique loolu yëpp am na ci man sama tànta seet mu ne ma kuy sa tànta ma ne ko soxna soxna Sall mu ne ma soxna Sall ma ne ko waaw mu ne xam nga bu ma la bàyyeek ñii dina la rey man ko waaw parce que commencé nañ ma dóor te man xaw ma lu xew noonu mu wane ginnaaw xale yi tourné waat ñëw di ma dóor bi man ko yow Diagne xam naa bu baax te xam nga ne xam naa la parce xam nga tam soxna Sall ci la tourné bi mu tourné euh, garde corps yi jël seen affaire yooyu ñuy maasaatee di dàq ful bi ba ful bi dem après moom ci la ne nan jël seen oto oto bi ñu yoroon ñoom ci caravane mu ne nan ko jël dugal ma ci yóbbu ma man suñu convoi fan la nekk. ma wax leen ñu ngi ci rond point Kouno bi mu ne nan ma yóbbu mais mu muy wax ak xale góor ne boo leen koy yóbbu boo leen demee ba ci yoon bi da ngeen di gaare oto bi jël beneen oto bu amul taf bi comme ça ngeen mun ko ci yóbbu pour ngeen bañ a am benn problème ci yoon bi léegi bi mu waxee loolu man ko problème am na ba pare parce que def ngeen ma li ngeen may def dóor ngeen ma gaañ ngeen ma lu métti lu ne mitital lu ne def ngeen ma ko mu ne ma na si man ko ah mu ne yow yaa nu tooñ parce que yow yaa ñëw suñu koñ naan da seet nit takk say barasa ah, man ko kon aw ma droit ci koñ bi seet nit ah man damay laaj rek ba xam aw ma droit ñëw ci koñ bi seet nit te ki may seet yow xam nga ko waaw nii daal la affaire bi demee gaa bi kooree ñu jël ma indi ma ba suñu côté bi ñu ñëwee ba ne ma fan mooy seen caravane man ko mi ngi nii ñoom tamit ñu summi seen mbaxane yi soloon parce que bëgguñu sol seen mbaxane yi di dugg ci ful bi ma ne ko solal sa mbaxane sol leen seen t-shirt ngeen dugg ñun yemuñoo ak ñun tuuti àdduna bi neex mu ko ban yëkkati loxo di ko dugal nit yéen li ngeen ñuy ci ci yéen la nekk te wane ngeen ko tey te loolu maam Paate mu ndaw mën na ko seede ndax bi mu ñëwee ma taxaw ak maam ne leen gis nga ñii ñoo ma indi garde corps yi Diagne Fada yi ñoom ñoo ma jàpp doon ma dóor ma di ñoom tamit ñu ànd ci dóor na ma ba seen xos kër di doog a tourné Diagne Fada ne yóbbu leen ko. hôpital nga jógee waaw hôpital nag laa jógee ñu doog a ñëw laay delluwaat parce instant li ma yëg sama yaram bëri na te mënu ma ko wax maa ngi tudd tey jégalu bu kàddu yi jubee ngeen xam ne rek doomu aadama fi doon wax bu dëggee tamit ngeen xam ne doon kàddu doomu aadama non non léegi kii. waaw sëñ Moustapha ah. métti tool yi kii dafa sama romb waaw baax na si Moustapha kii daal waxte la jóge ba fii ñu ànd ak moom pour mu euh, wax euh, li nga xamante ne moom ci moom lay gën a leere parce que témoin la te ñoo àndoon tamit karawaan depuis booba ak léegi waaw waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu mbokk internet yi ñuy seetaan à travers site internet yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Bara Ndiaye di ko jaajëfal moom ak Serigne Mara Niass à travers caravane et de de patriotes liggéey bu am solo bu ñu def démb foog naa ne coow lii lépp looloo ko jur dama woon tàmbali samay kàddu di tuubal. sunu sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké ñañ ndax la xew ci dëkk ba xëy na bu xëyee suba buñ ko ko nettalee lu doon lu koy neex ñu koy tuub bu baax a baax waaye li ci am solo mooy moom xam na fi yëf yi li xew lu dara lu dul campagne bi mu démarré ba léegi kenn gisul waa Benno Bokk Yaakaar ci Darou Mouhty parce que xam nañ la fa nekk xam nañ ni askan wa war nañ ginaaw bi ñu demee ba campagne bi des juróom benn fan ci lañ dugg si ci dëkk bi ñii nag démb bi ñu fa ñëwee bien vrai que ni lu jiitu loolu gars yi doon nañu fa def liggéey bu am solo waaye ndaw ñi génn gi ñu génn dafa tiital waxuma ñu nekk commune bu Darou Mouhty waaye ñu nekk ci département Kébémer ñëpp da leen tiital te loolu bu ma ko tuddee tudd naa ki nga xamante ni mooy Modou Diagne Fada ndax mooy président conseil départemental ndax ñi laata ñuy accès dëkk ba dañoo jaar Kébémer jaar Sagata yëngu boobu ñu ngi ko doon suivre parce que caravane bi tax mu doy waar te lii ñuy wax lii yëpp mën ngeen ko justifier mooy influenceurs yi topp président Ousmane ko ñu ci gën a siiw ci biir caravane bii lañ nekk loolu war a ngeen doon suivre affaire yi ñoom buñ taalee seen ay téléphone dëkk buñ jug waxuma waxuma la buñ jógee day fees dell ñoom biñ ñëwee ñu ngi leen teertu ca lycée ba ñu ànd ak ñoom ñëw ba ci pont bascule ñu taxaw ma ni Serigne Bara ak Serigne Mara yéen yéeg yëkki oto bi ak honorable député Daba Wañaan ak Thierno Mbaye bi nga xam ne mooy directeur de campagne bi ak Cheikhouna Bey xam nañ dëkk bi ñu nekk xam nañ ñu dëkkal ñu ngi bëgg a sàmmonteeg war may dëkk bi dañoo bëgg bu ñu demee ñu def lu stratégique ci diir bu gàtt ñu jël kàddu yi wax li ñuy wax parce que fii mokk na rumbox la Macky Sall teg waa dëkk ba mooy juróom-ñeenti doom yi mu jàpp tëj leen juróom-ñeenti weer ak lu teg xëy suba bàyyi leen te tegu ko fenn Pape Mamadou Seck bi mu bàyyi démb jëloon ko force occulte mu def ci ak kaso bi ñetti at mu bàyyi ko démb